Euh, économiste bëggoon naa xam un peu sa sa gis-gis ci situation économique gu Sénégal jamono ji bi nga xam ne Macky Sall mi ngi waaj dem. mais euh, président Macky Sall lool looloo gën a metti parce que xam nga li may wax souvent rek l' économie n' aime pas l' incertitude dañoo teg ci benn incertitude nit ñi bu ñu nekkee ci incertitude kenn nootul kenn dootul dugal sa xaalis parce que xamoo. Hmm, lan mooy xew suba premièrement la parce que dëkk dafa am boo ñëwee tey sa sa niveau d' endettement dem ba 76 pour cent dette en économie instrument la boo xamante ni danga koy soxla boo jàqee da ngay leb. Mhm. day mel ni boo dëkkee ci koñ bi rek borom bitik bi bu dee saa yoo ko lebee fay ko boo jaaxlee boo ñëwee leb ko dalay fay boo ñëwee leb ko dalay lebal. mais bu dee da ko amal bër bu bari ba pare di teggi koñ di ko wiiri pour bañ koo mhm. loolu boo soxlaa ba mu jàmp boo ñëwee day bañ Sénégal dafa vraiment Sénégal dafa dem ba toll ci 76 pour cent du niveau d' endettement léegi bu sa d' endettement bëree parce que président Macky Sall dafa defoon ay investissement yu lourd di xaar ni en deux mille vingt et un wala en deux mille vingt deux commencer exploitation pétrole bi ay ressources budgétaires yi yokk bon xëy na mu am benn effet diffusion sur le plan économique loolu loolu la xalaatoon loolu amul les compagnies pétrolière dañoo rationnel ñoom dañu naan bon comme ñun instant bi nii dañoo war a exploiter pétrole mais 2024 day am président bu bees dañu bàyyi ba président yi ñëw ñuy soog a exploité et donc tey dàqoon nañ ko ba le juin parce que décembre lañ ko doon def dàqoon nañ ko ba ba juin di xaar élection yi en février boo dàqee élection yi léegi nga dégg ñu ne dàqaat nañ ko ba ba ba août parce que dans le monde des affaires gars yi duñu les investisseurs directs étrangers fooye wuñu seen xaalis mm-hmm. te kenn Sénégal li mu dominé woon yeneen réew yëpp ci àdduna mooy say stabilité stabilité boobu nag la ñu la ñu la ñu créé benn jurisprudence parce que li président Macky Sall lu tax mu grave ma dafa ubbi benn bunt boo xamante ne xamuñu keneen bu ñëwee. Mm. lan la fi def. moo tax pour man la grandeur faw ñu gérer temps bi parce que économie bi li mu nar a souffrir ci temps bu gàtt bi mooy xaalis doo dootul dootul dugg ci biir réew mi kenn du kenn dootul dugal xaalis tànk yi fi dalul. les bailleurs de fonds yi nga xam ne dañu daan jàppale mer nañu Macky Sall parce que sur le plan international ñëpp. Mm. léegi lan dañ koy mel ni ku koy chantage. boo bëggee ñu di continuer dugal suñu xaalis. organiser élection yi. muy beneen pression. la troisième pression mooy sénégalais seen biir si biir réew mi ñun ñu du ñu wóolante du ñu du ñu wóolante dugal suñu xaalis c'est-à-dire que activité économique bi ngay bloqué. Mm-hmm. parce que activité économique jàmm moo koy maye nit ñi dañu naan nañu xaar ba dem élection pare. ku ci nekk firéeku léegi nag moo tax lu ñu mën a négocier man sans problème mooy nañu négocier organiser ko mm-hmm. lu mu gën a gaaw ñu génn parce que il faut que ñu terminer te phase ngi commencé depuis juin deux mille deux mille vingt et un depuis mm. euh, mars deux mille vingt quand le président le 3 juillet quand le le 3 juillet le président a dit nekkatul candidat Sénégalais yëpp dañoo dal. c'est vrai jàpp na Ousmane Sonko kenn waxul jàpp lépp ñoom xam nga lu kenn waxul dañ ne le 3 juillet ñu terminer avec Macky Sall. ñu mhm. defar suñu defaraat suñu réew. moo tax ba nga ñëw ba 3 juillet rek yëngalaat nga gis ci la nit ñi commencé waat dee nit ñi commencé waat génn léegi instabilité boobu ñuy créer kenn xamul ce que demain sera fait. Mhm. pour éviter tout cela na homme politique yi waxtaan. société civile bi la presse nit ñi ñu ñu sénégalais kenn ku ci nekk bàyyi li nga jàpp sa xol pour ñu ne il faut sauver le soldat Sénégal cest à mm. il faut que ñu manager Euh, d'ici trois mois yi di ñëw xool ñu gérer temps ñu ménager ko ñu vraiment ñu bañ fee nekk ku fi nekk di gëree gëral man maa wax lii président amul sens parce que pour man di yóbbu fenn le le le nord du Sénégal te ñun boo xoolee bashing bi ñu def président Macky Sall sur le plan international mu ko lool parce que am ndax mu metti ko <laughs> pour moom nit ñi dañoo soxor parce que amul ci benn dëkk Afrique bu président Moussa bashing bu toll nii parce que Sénégal moo ni toll. il a déçu en fait. non Sénégal moo ni toll c'est que le Sénégal c'est c'est tellement une grande démocratie. que nit ñi. ñun ni ñu ko meree que Wade mais ñun ni ñu ko meree. noonu la ko tubaab yëpp meree. Mhm. bu xarit tubaab boo am xam lu mu la wax. je suis sûr que les Sénégalais tiendront bon président Macky Sall mënul mënul yëngal démocratie sénégalaise heureusement conseil constitutionnel sagal ñu. Mhm. sag boobu nag pour man nañ ko driver bañ tuutal président bañ a dooleel ci di di wut fu ñu far. dem na nañ ko gérer avec beaucoup d' intelligence. pour man euh, guerrier guerrier lu dépassé nañ ko. merci beaucoup 19 candidats ñoo ko war a nekk dépassé nañ ko nañu waxtaan avec euh, euh, la société civile la presse les intellectuels ñu trouver loo xamante ni vraiment. merci beaucoup professeur